waaw mi ngi noonu kon uh, Khady Sylla yow tam comme ni ko waxee ñu koy ñaanal. parce que man ak moom daa am lu rafet loo xam ne da ko séq ak man. mooy dafa am nitam bu mu am. Uh-huh. mu présenté ma ko na ma Omar dénk naa la ko ndax dama laa wóolu man ko Khady même séquñu dara ñun ñaar da ngay journal dem ma journal dem rek mu ne parce que dama laa wóolu. waaw xam na loolu dafa dafa rëy te kooku ba tey jii ñi ngi jëflante kilifa la du ma tudd turam te loolu suñu relation ci Khady Sylla juddoo. loolu am yéene ci nit rek ku bëgg nit rek moo mën a def loolu kon maa ngi koy ñaan ak moom Moustapha suñu borom may leen njaboot gu barkeel Mamadou Barchi du ah? Mamadou Barchi ñu bàyyi la nga nuyoo di li ni étudiant jàng ci ICAT mais aussi tamit doon ressortissant bu Ziguinchor yow yaa jiite sax seen mbootaay gi ñu bàyyi la nga nuyoo hmm. ok maa lay jaajëfal hmm. Omar di di leen remercier pour euh, invitation bi. Mhm. donc euh, monsieur Mbengue moom jotoon nañ ko contacter. avant mhm. avant je pense fin décembre la woon balaa ñu doon dem Ziguinchor balaa coow li di am. Mhm. mais bon malheureusement ça n'avait pas abouti. donc yàlla dogal ni mu nekk en contact ak suñu suñu chargé de suñu parolier bi donc fan yi donc euh, ci en tout cas la ñu am opportunité. Euh, avoir euh, cette invitation. en tout cas te ñu leen ciy jaajëfal bu baax. <laughs> donc man je suis Mamadou Badji étudiant à la UCAD. donc nekk comme ni nga ko waxee njiitu étudiant mboolem étudiant Ziguinchor ak élèves yi nekk fii Dakar. <laughs> donc amoon nañu contentieux ak municipalité bi. <laughs> donc c' est vrai que. question c'est bien nuyoo bi mais léegi ñu ñëw hmm. ci question yi. mbootaay gi da nga ne mbooleem étudiant yoo xam ne ressortissant de Ziguinchor mais am na ñu lay dingat am na ñu lay doonoo ko ba tax sax ñu demoon la fi duma la fi duma yi metti lan moo waroon ñu duma la non ñoom accepté wu ñu ñi man euh, xam nañu ni maay président bi mais accepté wuñ ko lu tax si si parce que xam nga lu tax loolu am hmm? man lu ma jàpp donc mënuñu mënuñu accuser naan di wa def wala euh, di wa def mais lu ma wër ba wër mooy dafa am ñi nga xam ne dañ bëgg a ci situation bi donc moo xam pour xëy na yàqal le maire. Mhm. parce que tey jii nii xëy na contexte bu ñu nekkoon bu ma dara dalee moom peut-être moom la ñu ne mooy responsable. maanaam ñu dóor la wala pour ñu ne Ousmane Sonko moo yónnee. waaw loolu mën na ne. Uh-huh. wala tamit mu nekk ay ay. partisans ay partisans mi nga xam ne ils se sont frustrés parce que maire bu génnee naan ñu ñooy waaj a taal këru yaayam lu mel noonu nga nekk partisan gis ni kii mooy seen njiit. donc loolu tamit mën na créer frustration ba ñu def yenn yi mhm. bon on ne daal mais lu ñu mais lan moo xewoon duma la euh, mooy manifestation ñu defoon Ziguinchor rek mhm. parce que dañu am problème ak municipalité bi mooy wàllum logement étudiant yi mhm. donc problème bi dafa durer un an la def ñun Dakar la ñu domicilié wu waa Ziguinchor lañu donc chaque fois dañuy def ay aller retour di quitter Dakar dem Ziguinchor pour am consensus ak municipalité bi parce que xam la ne ni am na euh, nga xam ne mairie bi moom moo ko doon fayal étudiants yi. Mhm. donc ñoom bu ñu ñëwee day jaar yoon ñun tam ñu la nga ko doon fay. waaw nañ ko. Mhm. loolu toog nañu bureau on a parlé mu dem ba ni dina ko wëyal. Mhm. donc ku dem ba ni di ko wëyal dina ko wëyal xam nga kooku jëlul en compte kon ay affaire de caisse d'avance comme lii daloon Khalifa Sall ak yooyu. donc bu demee boo wax ni moom dina ko wëyal rek mooy kon xam na ni c'est possible. Mhm. donc gannaaw loolu ñu ne ko ah ñun du ci wëyal bi rek mooy problème bi mais parfois day am ay retard loolu doon tax ñu nag l'ancien maire Abdoulaye Baldé ñu doon am problème. retard ci mensualité yi. te bailleur bi moom dafa di nga xam ne ku tàng la tamit. Mhm. bu jotul xaalisam rek day menacé te bu menacé étudiants yi imaginez am na ñi nga xam ne ay orphelins lañu ak ay orphelines. amuñu fi fu ñu bàyyee bu ñu amul passe pour rallier Ziguinchor ca saa si ci biti la ñuy fanaan. te xam ngeen fi nekk actuellement fan ngeen nekk. Grand Dakar la nekk. yéen a ngi ci immeuble bi effectivement. kan moo koy fay. Euh, mairie bi moo ko mensualité yi jàll ni yëpp. Hmm. mairie bi moo ko fayagum ba fii. <laughs> donc c' est que am na benn moment euh, am na ay bonne volonté yu ñëw naan dañuy fay mais dañu leen ni carrément ñun wóorut ñu euh, jël immeuble bi teg ko ci loxo bon volonté. waaw ah, parce que contrat bi ñoom si wuñ ko. waaw pas question contrat bi sax parce que gis nga mairie bi génn na naan dañuy euh, ne dañuy résilier contrat bi parce que juste dañu mer ki nga xam ne moo génnoon ne dee woyal mu génnaat ne dee résilier kon dafa am lu xew lu xew mooy lan dafa amoon retard retard bi tombé contexte tabaski donc bu ñu génnee casse alerte opinion bi ci xëy na décision émotive la parce que ci mer la génn ne dee rompre contrat mais yéen aussi balaa may jox sax yéen ci mer ngeen génnee parce que kilifa aussi tey doo ñëw di ko tiiñal non mais xam nga ki nga xam ne toog nag yow ngeen waxtaan di ba nga ne ko mhm. promettre nga ko ni loolu du am foofu déjà il est tenu par sa promesse mhm. donc te beneen biir bu leen di wax mooy imaginer le contexte bi nga xam ne bu mu fi ñëwee tey parce que balaa ma ñëw sama benn xarit wax na ma ko mu ne euh, suba ñoom dañuy def manifestation ñoom dañuy politique mais dafa coïncider ak yow nga ñëw fi est-ce que du ñu ne dañu la yónni point d'interrogation te mhm. yàlla xam na ni man suma parole yi démb la ma yëgal ni euh, jot na nekk en contact ak yéen tey am nañu plateau. non non loolu moom graawul. non xam nga interprétation non loolu yow. loolu ñun la. Mhm. ñun moom suñu planning lañ yor moment bi ñu invité nit ak bu nga ko dul invité moom. Mhm. du kenn moo koy décider quoi. Mhm. loolu moom dal na sa xel dal. kon sa voilà li mu wax noonu sax pour euh, leeral. ni euh, li mu expliqué ci njalbeen gi yëpp noonu noonu la demee. que ni doon nañu wax man ak euh, sa waa ji. nga xamante ni bi moom moo. moom moo moom moo lijjanti invitation bi du dëkk. Mhm, effectivement euh, temps yële passé nag. Mhm. la ma envoyé benn message boobu mhm. yëpp amagutoon. Euh, wax ma ne ma boobu da ngeen a bëgg a joxe tamit seen version. parce que di moment que ñu nit bon defoon nañ ci plateau wax ci. ngeen war a joxe tamit seen version li nga xam noonu la yëf yi tëddee. defe naa ni dara gën ta normal. lii jotaay bi daal di am. jotaay bi moom ça n'a rien ak li nga xam ni mooy kii parce que moom sax. démb. Euh, laa ko wax ne ko bon nañ ne ñëw leen suba. parce que mënoon na ñëw sax ci semaine bële. wala mu ñëw ci kii mais en tout cas ñu ngi doon coordonné. donc ça n'a rien à voir ak problème mu. manifestation yi war a am ak. Mhm. et cetera ak yooyu. Mhm. léegi. Mhm. Euh, man euh, li nga xamante ni moom ak parce que yéen. parfois xam nga am na ay politiciens yoo xam ne dañuy làqatu ci ginnaaw étudiants yi rawatina ñoo xamante ni bii tey ñoo ko doon fay ñu dem ba ci biir léegi gañe nañ leen am keneen koo xam ni moom moo wuutu li nga xam ni mooy mbir mi ki daan njëkk a fay c'est sûr que ni amoon na relation ak yi nga xamante ni bi ñoom ñoo jiite woon yëfi comprendre nga te gañe bi ñu ko gañe mën na bañ a neex ak yooyu nit ñi dañuy njortu ni est-ce que ñooñu nekkuñu seen ginnaaw di leen xamb di leen dugal ci loo xamante ni bi yéen waru leen ci dugg parce que jàpp nañ ni li nga xam ne moom ngeen war rek mooy fexe moom képp ku ñëw mu nekk continuité keneen képp ku ñëw rek mu jariñ ñi nga xam ne ñooy étudiants Ziguinchor yi mais parfois dañuy wax ne politique moom moo ci rax waa politique yi ñoom ñoo leen di ruux ci suuf noo waxee ok donc euh, li nga wax am na solo bu baax mais damay rappeler juste benn contexte. Mhm. est que xam nga daaw élection yi. waaw élection yu municipalité bi balaa suñu maire bi di falu. Mhm. ah yi ñu ngi woon da ngay wax Ousmane Sonko. waaw mhm. balaa muy falu élection yi mu faloo noonu. Euh, samedi la woon élection yi. ñun mercredi la ñu demoon Ziguinchor pour def point de presse contre Abdoulaye Baldé. ci contexte su élection. ci contexte élection ñoom ñii ñii naan ñoom ñoo nekkoon suñu gannaaw te Abdoulaye Balde jamono jooju noonu moom moo àndoon ak monsieur ministre Doudou mm-hmm. ñoom ñoo bokkoon parti te lu ci gën a garaaw mooy mm-hmm. caravane bu Doudou tegoon pour étudiants yi dem voté ci Ziguinchor mm-hmm. ñun caravane boobu la jël dem Ziguinchor bu ñu yeggee parfois tamit yëngal dina am pour gars yi gestu la loolu tamit. day am non c'est ça yëngal boo xam ne du yëngal. voilà pour pour vous que. dem nañu pour rien parce que dañu leen ne ñun lenn rek moo war a mën a tax ñu bàyyi. Mm. mooy ngeen fay parce que mënuñu comprendre ngeen nekk Ziguinchor di distribuer ay millions ci ay quartiers. Mm. alors que immeuble baa ngi nii étudiants yi voilà fayagu leen ko. Mm. te boobu Abdoulaye Baldé ak Doudou Ka ñoom ñoo àndoon. Mm-hmm. donc su fekkee contexte boobu noonu mën nañ ko accepter c'est la même chose qui s'est produit ñun suñu yoon nekkul ci Doudou Ka nekk maire wala wala Abdoulaye Baldé wala Ousmane Sonko lu ñu wër boo woon dañu am li ma mujjee dégg Ousmane hmm. ko wax ko. ne hmm. comme si maire bi léegi municipalité bi moo koy yore. du hmm. loolu la wax. façon bi nga xam ni moom la teg man gisuma ci benn problème boo xam ni parce que attention yéen étudiants yi tamit booy. ay naan te ngeen. parce que yéen gis nga ci immeuble yooyu. <laughs> yéen ñi nga xam ni yéen ay président yeeg yooyu yéen ay sélectionné ñuy dugg ak yooyu léeg-léeg ay seen i gelak yooyu yëpp tamit di tambale da ngeen di ri tambale booy. donc voilà ah, gis nga gis nga kéema àndal. Euh, ñoom ñoo waaw voilà <laughs> <laughs> donc ñun suñu logement <laughs> dafa day jaar yoon day jaar yoon suñu logement hmm. d'abord plateforme la hmm. maanaam jarul ngay déplacé wu pour ñëw inscrire plateforme la bi nga xam ne dañ koy envoyé ci groupe whatsapp yi yëpp te ah. dañ koy publier suñu page Facebook ah, étudiants yi ci la ñuy inscrire ah. bu étudiants yi inscrire dañuy ñëw def maintenant tri ci tri yi dañuy hmm. xool d'abord ñi nga xam ne ñu dëkk Ziguinchor parce que nit mën a inscrire fekk nekkul étudiant Ziguinchor mm-hmm. bu ñu jëlee ñu dëkk Ziguinchor ba pare mm-hmm. ñu xool seen parce que ci biir plateforme bi ñoom dañu ci dugalaale seen i dossier ñu xool ndax nouveau la wala ancien la mm-hmm. bu ñu xoolee ndax nouveau la wala ancien la nouveau yi ñoom ñooy prioritaire bu ñëwee ci nouveau yi ñu xool ñi nga xam ne ñu am famille Dakar Dakar ak ñu amul famille Dakar Dakar donc bu ñu paree ci loolu encore ñu xool par rapport ak ñi amul famille Dakar Dakar enquête boobu nu ngeen koy defee non ci biir plateforme bi ñoom ñoo koy renseigné étudiants ñoom ñoo koy renseigné ñuy renseigné xam nga dañuy bindu yi ma jigéen mii bu mm. fekkonte ne bi dalaa xam war a nekk étudiant yow mi nga xamante ne bi yaay kii bi mën nga koo jox <laughs> yi nga xamante mooy critère dëgg-dëgg mais kayit këyit bi këyit bi par exemple euh, ma jox la benn exemple comme la étudiant bu ñu logé parce que am nit ñëw naan la man awma fu ma bayee koo waaw boo ñëwee ñu constaté ni bi nga logé da ngay dem week-end di kii dañu ne mais yow yaa ñu ne woon amoo famille Dakar Dakar tey gis nañu ni yaa ngi dem weekend mm-hmm. parfois étudiant bi ni la ah fu may dem weekend rek boo xoolee du mu fa fanaan mm-hmm. parce que sama tante laay dem damay dem yendu ji ñibbi ñi nga xam ne tey ji ni ñu am euh, famille Dakar Dakar mm-hmm. euh, dañuy xool par rapport ak nu ñu nu ñu féetee université su fekkee dañu sore université wala dañu jege université loolu yëpp ñoom dañu koy renseigner ci biir plateforme bi donc ki dëkk Kër Massar ak ki ah. dëkk parcelle wala wakaam ah. boo xoolee Kër Massar moom moo prioritaire ci logement yi xel nangu ko utal ko boo xam ne moo yor kër gi. loolu kay moo war a gën ci mais mais attendez xam nga logement dafa hmm. grave. Ah. gis nga étudiants yi ñëw ñu rek loger leen. xam nga logement fu muy tàmbalee tubaab dafa commande kii fay xaalis non laissez-moi expliquer rek man moom man. Ah. man su fekkee c'est-à-dire gis nga question bi du dëkkuwaay rek. Hmm. dafa am yu bëri liggéey bu bëri bi nga xam ne bu ne ci gannaaw. gis nga étudiant bi bu muy am bac euh, bu muy recevoir diplôme am parce que léegi doo dem office di bac ñu jox la sa diplôme comme kii boo bu ngeen defee bac seen département yi la di jox seen i diplôme ñun fa la ñuy dem recenser leen bu ñu recenser ba pare jox leen information yépp lu ñu soxla ba pare créer leen groupe WhatsApp pour que plateforme campus bi bu tijjiwee ñu mën leen guider ci orientation yi mm-hmm. boobu benn bu orientation yi jàllee bu ñu leen orienté wee Dakar par exemple wala ñeneen ñu orienté leen Saint-Louis dañuy soxla lu ñu naan préinscription en ligne pour mën a def seen inscription université mm-hmm. boobu tamit ñu bëri dañ ci am jafe-jafe ñu guider leen ci orientation yi noonu tamit ba ñu finaliser seen inscription ñeneen ñi dañuy ñëw ñu am problème mais ñu ñoo leen di yóbbu université ci box yi ñu inscrire leen ba pare. mais gestionnaire bi da ngeen ci àndul am déet man foofu laay waxee. loolu tëjul dara ak gestionnaire. non dama lay expliquer rek parce euh, pour pour ñëw ci gestionnaire mais. xam nga par rapport mm. xam nga Ousmane Sonko daa am lu mu wax. Mm. ne bañul. Mm. mais day ut koo xam moom lay dénk kër gi mu koy geere bu weer dee maire bi fay am na ay sources yu ñuy wax ne ñoom ñoo bëgg ñu leen di jox xaalis bi directement pour ñoom ñu koy gérer seen bopp te loolu. mën na dem voilà mën na dem ba indi ay problèmes yoo xamante ne ne loolu c'est archi faux. ah mais gars yi wax nañ ko euh, gis nga je vous jure ah. je mm-hmm. mm. euh, le maire génn na def déclaration bi nga xam ne ñun lu ñu jot a waxtaan ak moom la. Mm-hmm. mu ni moom moo ñu ko wax. te loolu amul. Mm. parce que wax dëgg rek la. mooy lan mm. mooy euh, moom moo ñu ne ñu dem indi contrat bi. ñu ñu nekkoon non. ñun kon lan moo xew réellement. voilà parce que en réalité ñoom dañu ne ñun on pas dans le contrat ñoom la ak borom kër gi. Mhm. donc su fekkee ñoom ak borom kër gi ñoom ñoo yor contrat bi yow léegi loo ñuy laaj contrat. kon kay moom kay war na ut gestionnaire nag xam <laughs> booy bi. waaw léegi loo loolu benn waaw moom créé béréb bi moom mooy. fay xaalis question gestionnaire bu ko neex mu tànn ku ko neex na ko gérer na sama kër. xam nga lan la. xam nga xam nga problème bi fu mu ne. Mhm. gis nga su fekkoon da ngay loger étudiant pour loger ko rek. Mhm. loolu logement boobu noonu man jàpp naa ne amul sens. yaa ngi jaxase contrat yu jëkkee xam nga dafa am mhm. contrat ñoom Ablaye Balde. boobu yéen a géré woon mbir mi. yaa ngi dégg. waaw mais yaa ngi dégg boobu yéen est contrat boobu lañ leen doon laaj. mooy bi nga xamante ne bi xam nga jamono ñoo Ablaye Balde. Mm. bon ñuqi xaalis rek joxe la. ngeen booy ngeen dem <laughs> daal di fay la ca des ngeen dugal ci seen kii. non ah, moom sax mosuñu laaj contrat. mosu leen naa leen bu ñu toog moom non c'est-à-dire que da ngeen nekkoon ci lu normal. Mhm. Ah, ñu bëgg leen a normaliser. la moo fi normalul jugee ci ndëngate ñëw ci jub mhm. dafa metti maanaam kii dafa bëgg kii. <laughs> non non non non dama lay wax benn affaire kii kii dafa ñëw xam nga Ousmane mhm. man dama ko déglu. mu ne. moom ak opposant la. te nguur gi da koy rëbb benn mhm. fay bi muy fay affaire bi mhm. maire bi mayu ko du compétence transfert bu maire bi mhm. moom mu ngi mel ne ASC yi ñuy jox xaalis maire yaa koy def ko dugal ci yeneen rubrique boo xamee ne maire yi di doxee yooyu nag ëllëg moom mën nañ ko ci dab na xaalis boobu nga doon joxe lu tax nga ko doon joxe te yoon mayu la ko léegi nag mu bëgg lu leer xaalis du ci loxoy ay étudiant kese pour ëllëg mu am traçabilité étudiant yi mosuñu jot xaalis ça c'est un ci maire bi étudiant yi jot xaalis ci maire bi suñu loolu ba ci gestionnaire non loolu un xam nga ñoom ni ñuy fayee par banque la euh, le maire bu bu ñuy recevoir dañ ko ne retard dafa am mun nañu effectivement gis naa ko mi ngi trésorerie man mënuma inventé suñu discussion bureau ak Ousmane Sonko bi nga xam ne dañu toog bureau ñu ñu discuter ci mënuma ko inventé mhm. lu may wax ni lu am la maire bi musul jox ay étudiants xaalis lan moo tax léegi ñun pour une première fois ñuy dem di laaj maire bi xaalis loolu musul am sa n'existe pas dañu ni dafa am daf ñu envoyé relevé de compte parce que ñoom dañu ni woon nañu nañu ne borom kër mu consulter est-ce que ko borom kër bi dem jël relevé yi mu jox ñu ko bu ñu def suñu point de presse ñun on avait les on les a montré aux aux aux wu borom kër gi moom dafa am kontam bi nga xam ne. mu jaarale relevé yi si yéen alors. non ngeen nee ngeen voilà nee ngeen. voilà xam nga la la. xam nga leen ni woon. 5 millions yi lu mu demee xam leen ni woon. Euh, euh, dañu waajaloon Abdoulaye kii Abdoulaye Balde ci élection yi defal ko point de presse comme li ñu defal Ousmane Sonko. loolu la ñu ko waajaloon ni ko. fii xanaa nga fay rek moo mën a tax ñu dellu gannaaw mais fii ak fayoo li ngeen defal Ousmane Sonko defal non 5 millions yi fu mu yi fu mu jugee non non dama la dama la bëgg dama la wax ma après nga mm-hmm. ñëw 5 millions yi mm-hmm. booy da a ñëw nekk ay milliers yu mm-hmm. man gëm naa ne sax ëppoon ngeen ay étudiants parce li génnoon si ngeen soor yëpp ay politique mënu ci woon ñàkk benn. Mhm. amoo leen autorisation paraît-il boo leen ko amee mhm. man maa juum nga mhm. leeral ma. beneen bi ñu encadré leen. beneen bi ñu encadré leen. <laughs> mais nekkatoo leen ci manifestation la seen xaalis nga nekk si une manifestation politique. ñu jiñ ni Doudou Ka moo nekk si seen ginnaaw. Ousmane Sonko loolu la wax. xam nga loolu désinformation la. man mii tee nañ ma police. dóor nañ ma ba xar sama bopp kii door nañ ko ba xar bopp bi ñun quatre boo bu ngeen duggee suñu page Facebook. da gis publication ñun ñëpp politique a été blessé par la police écoutez on a été blessé par la police. mais mais xam nga ni policiers yi ñooñu doon escorté ah, escorté nga doon ñit ba tuur deretam loolu mooy escorté ah cest loolu ngay wax ni mhm. saa <laughs> da ngeen doon wax ci affaire 5 millions yi. voilà 5 millions yi da doon wax pour mu. voilà 5 millions yi. fan la leen police songee ba dóor leen. concert de casserole ku ko fi def bañ la buum bañ la dóor dafa am. ñun concert casserole lañ def. waaw gis fii fii ci réew mi fii nii. concert casserole bu fi am buñ fi xam nga dama lay wax ci concert casserole. dafa def concert casserole. Mhm. ci benn semaine bi. Mhm. dans la même semaine. Mhm. comme si da leen gemb pour ngeen tontu ko. non xam nga ñun. vous étiez dans la ci politique ngeen du loolu xam nga la la ñun ñun on est mm. kii def politique. moom day xool ay contexte politique ak yu muy def ak yooyu noonu ñun on est une dañu am suñuy propre intérêt donc kii bu amee yi yi nga xam ne yu mu war a defu ko ñun dañ ci war a taxaw donc man lu may wax mooy tey jii nii peu importe obligation ou pas man bu ma gisee nit di jël décision nit laa wax de précision ma nit di jël décision bi nga xam ne intérêt Ziguinchor nekku ci mais au contraire ay doomu Ziguinchor ñoo ci loru xaaruma ci obligation xaaruma ci diw masamba wala ma dem ba damay dem ba mu ba mu jeex te fu mu toll nii dossier bi noonu la fa demee dossier bii nii tey jii nii naan dañuy résilier contrat bi dañ koy romb wax ma ani intérêt Ziguinchor ci loolu ani intérêt commune bi Ziguinchor la la ciy gagné au mais romb ko xam nga léegi loolu la ko wax maanaam euh, léegi léegi la wax loolu mais début bi il n'avait pas dit ça. la ngeen waxoon ci biir discours tabaski discours tabaski bu le maire déglu ngeen ko le maire avait carrément te daf koy remplacer par ay bourse waxul woon ay affaire de kii. léegi lu tax bu Dakar rek a rompre te yeneen yi nga xam ni euh, ñoo nekk xaw ma. yooyu mu fay leen xam nga yooyu kiiwu ko. yooyu rompre la est-ce que la gars yi xam. moo tax xamul problème bi fa la nekkee parce que lii nii boo xoolee c'est comme c'est une décision émotive. Mhm. boo nee tey jii nii dañuy épingler ay question de caisse d'avance ngay daw. Mhm. donc boo nee mun mun ma fayal mooy munoo fayal Saint-Louis munoo fayal ñee mais nga naan ñii dem na di mais ñu du leen fayal li ñu nangu yéen bañoo yéen léegi bu ñu demee bu ñu demee Ziguinchor pour defal point de presse euh, Abdoulaye Baldé euh, ci la duuru ko yónnee benn délégation mu ne mu ne ñu noo nañu bàyyi lépp mu daanu mu dem euh, recevoir kii pour pour mu recevoir ñu ñun ñu discuté ci question bi ñu ne ko ñun fu mu toll nii lenn rek fay rek moo war a mun a tax ñu bàyyi mu ne ñu may kaa leen recevoir ma ñu dem këram bu ñu demee këram ñu expliqué ko problème bi mu ne ñu mais attends moom du meer musul liggéey meri donc du moom moo war a fay detu municipalité mu ne ñu moom daf ñuy subvention daf ñuy may xaalis pour suñu kees bi ñun bu ñu fayee ñun la bu ñu fayee ñun la yaa ngi dëgg ci la jox 5 yi ñu jël 5 millions yi déglu ma de xam nga foofu noonu bu fekkoon ñun on était mal intention su fekkee lekk xaalis ñun moom moo ñu moom moo ñu jiiteel 5 millions du ñu jël fay dañuy jël 5 millions dugal ko ci kees bi mais jamono yi noonu municipalité mi ngi woon ci élection ñu ne ah ba ñu jël fay comme ça kii falu xam nga boobu noonu fekk amagul maire kii falu bu faloo non mais wuy leen ma wuy leen ma lu gën a garaaw lu gën a garaaw kii kii falu bu demee ba falu voilà non xam ke bon sama bopp déglu leen bu baax non xaar xaar mu pare rek léegi ñu ne waxtaan ci question bi mais ñun approche bu ñu demee déglu leen bu baax bu ñu demee ba falu bu ñu bu ñu kii Sonko bu mu faloo laa bëgg a wax le maire Ousmane Sonko dañ ko bindal projet déglu leen bu ngeen xoolee suñu photo bi man ak Ousmane Sonko nii am na projet bu mu ko jox un projet de lit superposé projet bi 13 millions la buñ ko rencontré ñu ne ko projet baa ngi nii 13 millions la mais comme municipalité bi amoon ñu ne ko 5 millions yi nga xam ne ñu faire à la ko ngeen avance mhm. ñu loolu kay simple laaj ñu ko xaalis luñ ko laaj matériel ay lits superposés ay lal. pour yokk capacité d'accueil bi pour xale yi mun a gën a loger fu ñu doon loger loolu yomb na waaw loolu kay yomb na kenn laaj ko xaalis. ñoom xaalis bi dañu bëgg ñu leen koy jox directement le fait ñu dem si kër Doudou Ka mu jox leen 5 millions ñu ni dañuy dem fay. ñu ñam ko noonu mu neex ah, bu est-ce que est-ce que est-ce que tamit loolu taxul ngeen bëgg a dem nag forcé waa ji tordul que la même parce que bi di jaar si seen waa déglu ma rek laisse-moi mm-hmm. mu jox leen ko muy jaar si yéen mm-hmm. léegi même bu dul loolu sax pour pourquoi euh, borom kër gi bailleur bi si boppam mm-hmm. mu mu mu mu mu jël affaire bi jox leen ko alors que yéen mosu leen fay mosu leen def dara muy jaarale affaire bi di leen ko jox lan moo tax jëlu ko jox ko directement nga xamante ni ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo doon fay loolu yow yaa ne yaa waaw ay relevé la ñu jox waaw relevé boobu yéen waroo leen koo jël non non dañ ko ni xam nga ñoom ñooñu ne bailleur bi na consulter est-ce que fay ñu ko ñu ne bailleur bi comme ñoom ni ñu ne fay tamit ba ñun mën nañ leen gëm comme mën nañu gëm bailleur bi mais pour gëm bailleur bi looy def mooy daf lay jox relevé boo xoolee relevé bi di nga xool ndax fay nañu wala fay ñu ñun loolu moo taxoon juste ñu laaj relevé bi léegi 5 millions yi bu ñu bu ñu xam nga ñu dañu ne ñu jox ñu 5 millions yi en équivalence de lits superposés ay lal xam ku bëgg lekk doo laaj ay lal quoi parce que lal moom franchement duñ jël lal yi jaay leen loolu c'est sûr te beneen bi li mooy dañu di invité ñoom pour ñu ñëw ci dëkkuwaay bi ñoom ñoom bi chaque fois bu ñu leen ko di ne ñëw leen xool immeuble bi mhm. euh, ay étudiants ku leen di jiite ay étudiants ñoo koy fal mhm. loolu moom réalité la mais pour une première fois man ma gis une municipalité bi nga xam ne euh, bu jël décision ay étudiants parce que ñun ay Ziguinchor waa ñoo ñoo ñu fal on n'a été maanaam du ñu ñoo fal suñu bopp. Euh, le maire Ousmane Sonko ay Ziguinchor waa ñoo ko fal Macky Sall mënu si dara ñun ay Ziguinchor waa ñoo ñu fal moom mënu si dara on a un récépissé on légalement. Euh... kër gi mu ne ko kër gi ngeen dëkk mën mais kër gi ngeen dëkk hmm. xanaa kañ mairie bi bu fekkee ne moo ko yor kañ loolu kañ hmm. bu dee xaalis tëdd rek ngeen bëgg. man nee naa leen tëdd wala ngeen nga man man man je même prêt. gestion kër dafa am mais je suis prêt non je prêt même man je prêt. voilà gestion kër gi gis nga ñii. oui man xam naa dëkk bi déglu ma gis nga Sénégal fii ku fi mm-hmm. jiite groupe WhatsApp sax. Mm-hmm. tey nga rey gaay mm-hmm. xam leen ni ngeen di waxee respecté da ngeen tànk boobu ñu tekk ci yéen nga xam ne xale jigéen yi bu ñu ñëwee eh, xool leen di ngeen di tëddee. kërëb kërëb nii ak nii. non non loolu amu fa xam ngeen xam ngeen xam nga lu triste suñu problème bi. on a juste on a juste le malheur. Hmm. que euh, suñu maire bi bi dafa ki nga xam ne. yàlla dak daf ko may lu mel nii saa yu waxee rek. Hmm. ñëppay gëm lu mu wax. Hmm. te le malheur encore beneen bu ñu am mooy euh, dañu am problème ak ki nga xam ne c'est comme si on a un problème avec la personne qu'il ne fallait pas avoir. de problème avec qui il avoir de problème il fallait pas avoir de problème. lu ñuy def ba lépp normal ñun je je vous dis. Ah. les démarches qu'on a qu'on a euh, gis nañu Guy Marius Sagna pour des gens yi nga xam ne ay politiciens lañu on a rencontré Guy Marius Sagna on a euh, le directeur de cabinet de la mairie monsieur Sakho on a rencontré Imam Ratib nga xam ne moom mooy service Ziguinchor bi ma koy siyaar. on a rencontré euh, professeur Daouda nga xam ne moom c'est le responsable des des cadres de Pastef au pour mu recevoir ñu pour ñu trouver consensus ci lii loolu yëpp amul suite on est allé sept fois je vous dis dañu quitté fii dem Ziguinchor sept fois ci ay étudiants te kenn joxuñu paas te xaaruñu sax si ñoom ñu jox ñu paas dem Ziguinchor pour rencontrer leen pour que ñu trouver consensus loolu yëpp amul ci benn suite te musuñu leen rencontré bu ñu wooñu ne ñu ah rencontre bu ñu jotoon am ak yéen voilà la suite voilà lii lii ak lii lañ jàpp musul am avec tous les déplacements qu'on a fait tous les sacrifices mais lan la boo demee ba sës génn kaas lu ñuy gis mooy c'est un Doudou Ka qui est derrière toi te Doudou Ka may jaar ci parce que c'est un grand frère tamit loolu faa nit ñi xam ko mm-hmm. mais Ousmane Sonko bu ñuy recevoir mm-hmm. Guy Marius Sagna recevoir ñu Bassirou Koli recevoir ñu Moussa Sakho recevoir ñu ñëpp ñu nekk ay cadre Pastef di ñu recevoir lan moo ñu war a mën a tere tamit ñu euh, ni ñu ko waxee Doudou Ka recevoir ñu. ba pare léegi nii <laughs> ba pare mi ngi koy fay ne ba tey amul benn suite. te étudiants yi commencé nañu cours yi. ndeysaan jërëjëf Badji ah, Abdoulaye Mamadou Badji jiite euh, waaw ñu bàyyi la ma bañ la dog. bon en tout cas di leen remercier pour invitation bi c'est vrai que question bi complexe na lool te euh, ñun lu ñu wóor ba wóor mooy lu ñu gëm même si tout l'univers était contre nous mais bu ñu gëmee ni lii injustice la dañ ko war a xeex peu importe lu ñu ñi di wax suñu gannaaw ñoo lijjanti ñu dañuy taaw xeex ko parce que lan la intérêt Ziguinchor moo ñu ñor tey jii nii xale yi nga xam ne parce que man dëkkuma fa. man ak sama staff bi yëpp dëkkuñu foofu ñun loolooy problème non Doudou Ka bu ñu woowee léegi dañ ko dem recevoir donc nañu nañu ma ma tëjee fii nañu bàyyi di ne ay Doudou Ka et ñun Doudou Ka un grand frère la ñoom dañuy politique mais ku ñu woo ci ñoom pour naan dañuy jàppale étudiants yi dañ koy dem recevoir lu euh, def ñuy recevoir voilà lu mu def pour étudiants yi moom la concerné ak étudiants yi ñu l'essentiel mooy dañuy rendre compte lu ñu war a def ñu def ko donc nañu bàyyi diabolisation bi donc quand on quand on par ceux qui sont de Pastef là c'est la bonne réception mais quand c'est de l'autre côté loolu c'est mauvais ils sont corrompus ils sont manipulés donc je pense que idéologie tamit faa ñu xoolaat nañu leen rek quoi. Mm-hmm. jërëjëf ki nga xam ne nu mu tudd. Euh, Yaya Sadio. Yaya Sadio ñu koy nuyu président mm-hmm. euh, nekk ci Dakar. effectivement doon nañu wut lii donc am ay échange mën a voilà exposer suñuy problème euh, depuis début bi mais malheureusement amuñu ko woon mais ba tey comme le problème n'est pas encore réglé je vous dis bien day baax tamit ñuy ñuy donc municipalité bi tamit suñuy grand frère lañu ñun on n'est pas contre eux te euh, Ziguinchor ñun ak ñoom ñoo ko bokk donc intérêt Ziguinchor moo ñu war a lié donc tey ñun ak ñoom dañu waroon ànd xool na la ñuy liggéeyee pour commune bi mais pas genre ñu ngi ciy fekk donc tey ñu leen di woo tamit ñu ñu ñu am xolu muñ toog waxtaan ak ñun parce que ñoom je pense que dañu am haine bi nga xam ne bu ñu développé ci ñun ba tey ba ba tax ñoom mënuñu toog waxtaan ak ñun te loolu vraiment c'est c'est déplorable.